mbokk internet yi maa ngi leen di nuyu te di rafetlu bu baax a baax ni ngeen di ande sa su ak programme 5 TV ba ñëwaat ak yéen ci décortique bi ñu leen di defal série Karma tey nag ñu ñëw ci épisode 20 bi ñu door ko ak séquence bu njëkk bi ñu gis ni euh, entre euh, Ndeye Marie Virginie Ami Léa ak ki nga xam ni moo di may seen xaritoo lu yàgg la euh, ba tax nak nekk na loo xam ne lu dëggu la mu mel ni nit ñuy dundee jamono ji depuis ñu nekk xale la doon Euh, ndax wan nañu ko euh, mu mel ni nag ki nga xam ni moo di Ami ak nday Marie ñoom nag euh, seen déggoo naka jekk yombul woon <laughs> ndax bi ñu nekkee xale itam comme histoire yi ñuy am ni yàgg nañ di ko am mu mel ni kon groupe bu nekk rek dina am ñoo xam ni ñooy gën a juboo ak ñoo xam ni ñoom la yàlla gën a boole waaye loolu nag li ko waral mooy Ndeye Marie ak ki nga xam ni moo di Ami dañoo xaw a niroo jikko te d'habitude ñu niroo jikko ñoom du ñu déggo bu baax a baax waaye lu mu ñoom à chaque fois li ñuy jàngale mooy euh, xaritoo euh, bu sincère bi nga xam ni moom la ñuy euh, doxee saa su ne ndax ñoom ñëpp benn lañu te kenn du ànd ak sa morom di wax ci keneen lu ñaaw muy loo xam ni exemple la pour xale yu jigéen yëpp ndax àndu jigéen ku ne xam na ni yombul ñu jàll ci abu abu nag tey gis nañu ni tiit na ndax rek li nga xam ni moom la def te mooy faat jabaram di Virginie mu mel ni kon comme li ñuy wax rek nit loo bon bon am na si yoo xamante xamante que ni boo ko defee faaw mu laal la ndax ku ne xam na jabar dafa sori trop si euh, jëkkëram abu nag mel na ni li ko dal du tayeef ndax yaakaar naa bi yenn bon yi euh, ñàkku rek loo xam ni moo nekk ci ginnaaw lu ko koy euh, defloo mu mel ni koo xam ni daa war a faju ji ndax bonaayam fu ko nit natt rek weesu na ko ñu jàll ci Aïcha moom nag moo ngi conseiller Ndeye mari ndax xamal na Ndeye mari ni ko li tax rek nit jigéen di am déception yu bari ci góor mooy nga yomb ci moom muy loo xam ne nag lu am solo la ndax Ndeye Marie tey jii bu ko euh, Abdoul Mazib bàyyee c'est parce que rek euh, Abdoul Mazib lépp lu mu bëggoon ci moom amoon na ko ci moom mu dem sax ba koy dëkkal loolu nag nekk na loo xam ni euh, xale yu jigéen yëpp war nañ cee bàyyi xel ndax góor bugut loo xam ni da koo yomb ba tax nag à chaque fois boo yombee ci moom rek day dem bëgg dem uti leneen kon ay Aïcha conseil bi mu ko conseillé te mooy rek di jafet ci góor ñi téye sa bopp ba keroog ñu lay may borom kër nekk nekk na loo xam ne lu am euh, solo la ñu jàll ci ami ak euh, may ami nag moom conseiller na may ndax rek moom li mu bëgg mooy may daal di dellu ci Lamine ami nag pour la première fois mu taxaw di défendre góor loolu nag mooy wane ni ki nga xam ni moo di Lamine wute na ak góor ñu bari euh, ndax nag comme li ñuy wax rek nit faaw nga juum nit ku nekk day juum te boo juumee nangu ne juum nga yaakaar naa dañu laa war a kon may mel na ni rek bëggul gis li nga xam ni moom moo am te mooy rek mook Lamine dañoo euh, bëggante ba tax nag am yi koy conseiller bu baax ngir mu delluwaat ak moom daal di koy jéggal euh, ndax Lamine moo gën ci moom waaye mel na ni may bugg koo dégg euh, mel na ni may moom li mu jàpp rek mooy mook Lamine amur impossible la ñu jàll ci Abdou Mazib moom nag takk nag ki nga xam ni moo di Malika mu mel ni nag sëy bi nekk na loo xam ni dañu ko gaawal trop daal di koy def yëfu kilifa ndax fa ñuy waxtaanee rek fa lañ ko daal di mayewee mu mel nag Mazip soo moyewul mauvaise soirée rek la daal di def euh, ndax euh, sëy kenn du ko pam pam euh, pamti wala nag di ko def parce que da ngay faj mer wala nag leneen mbëgeel moo la ca war a dugal te ku xa ku nekk xam na ni Mazip sëyul ak Malika ngir mbëggeel waaye nag dafa sëy ak moom parce que amatul espoir ci digganteem ak ami ñu jeexal ak abu abu nag moom gannaaw bi mu rayee ki nga xam ni moo di Virginie ba noppi nag fay ngir ñu suul ko moo ngi victimiser xam ni nag euh, dafa jaaxle gisul euh, jabaram alors que lépp nag moom moo nekk ci euh, ginnaaw waaye ñi nga xam ni ñoo di xaritu Virginie yi yaa nga xam ni abu doon comporté woo ak Virginie xam nañ bu baax a baax que ni ki nga xam ni moo di abu moo nekk ci ginnaaw lii lépp parce que yàgg na di ko maltraité foofu nag liñ fay wane rek mooy nit boo nekkee ci sëy ñu lay maltraité di la dóor ak dina def naka sudul noonu bu yeboo nga génn ca ndax d'habitude nii rek lay mujjee képp koo xam ne ñu ngi lay maltraité ci sa biir néegu sëy itam dee rek ngay mujjee ñàkk sa bakkan wala nag leneen euh, dal la ca loo xam ni say mbokk rek ñoom ñooy ñàkk kon mbokk yi def dinañu leen topp si yeneen épisode yi waaye laata boobu wéyal leen di abonné ci 5TV te bu leen fàtte nag di bës si cloche de notification bi ndax ngeen di jot suñu vidéo yi ci saa si jërë ngeen jëf à très bientôt incha